justice bu CEDEAO dal nay dëggal daan bi ñu teg ci kaw Ousmane Sonko niki aljuma ji daluwaay boobee jàpp na ne benn àq ak yelleefu lideru ex parti bu Pastef salfaañewuñu ko ba tax lépp luy sàkkuteefam mu dal di koy jalax lu ni mel nag di ab dogal boo xam ne neexul benn yoon kenn ci ñi koy layal ndax maître Clédor lii jàpp na ne. communauté nationale ak internationale nag ñoom seetaan nañ bu baax a baax li nga xam ne xew na ci Sénégal nguur ak Sénégal ban taxawaay la ci amoon ak ni nga xam ne noonu rek la doon jëfee Ousmane Sonko li mu dund ñëpp gis nañu ko ba noonu sax ñuy fàtt fépp foo xam ne moo ñu doon jëmee ca këram. ci kanamu àtte bi nag gis nañ rek ne lu ni mel moom jaay doole kese la te loolee ñu ngi koy yombalal tam ñeneen ñi nga xam ne moom la ñu bëgg a def li nag métti na lool ndaxte dafa mel ni rek askanu ko Sénégal moom ci jafe-jafe rek la ñuy nekk seen upp ëllëg lu ñu war a xoolaat la. yile kàddu la xamle ci ab bataaxal ci côté Ousmane Sonko ñi fa moom ak i jege ñaaleem lu ni mel yaakaar bu tas la. avocat wu opposant Ousmane Sonko bi dañoo sàkk woon ci weeru septembre ci cour la CEDEAO yow bi mu dal di jeexal teg loxo gi ñu ko teg loxo dal di koy doctoral yi ba noppi dal di dakkal seyal gi nga xam ne nguurub Sénégal sayal na ko euh, parti PASTEF